wax nga dëgg ndax Touba laa jóge kera rek maa Ini nuyu Sénégal di ñu bayu kenn suste yau mi damay sëgg ñëw nii moo tax ma bëgg dem sa kër ga àgga yow maam morke bi foo ke yow fii foo ke? waa ñun ñun noto lañ dëkke yaay maam ñun ñu noto lañ dëkke noto guy jamaa noto guy jamaa lañ dëkke waaw wow. noonu lañ dëkkee non non noonu waaw waaw waaw xam naa xam ñu bàyyi la ak sa gars yi rek nga kii ak ñëw waaw. ñu bari nañu ñe mu oto bu wax ma heure bi ñaa ñëw heure boobu si man nelawuma. ndax bëgg a ñëw. ba ñu nodd ma sama portable sonné mu ngi Moustapha moo ne si biir mu sonné ma dem fëgg xale bi ñene ma dem na bu yàgg sëñ mustafa si ma leen ci mëna a wax bari sëñ Moustapha góor la rahim sëñ mustafa gor la jàmbaar la gey la ndax mo fi def lu kenn deful mo fi wax lu kenn waxul febo ñew ñene kenn du gamu sëñ Moustapha ne mission wu maamam du tëdd mu gàmmu première gàmmu deuxième si la localité te booba mam Cheikh la ñu ma laaj année du mu jëkk gàmmoo si kursi muy fii ma wax ka si kursi bi fii xam ka ma ne ka nag année bi mu gàmmoo xam naa ka wante mënuma ko wax ci faransi moo wax eh, ko si olof ma ne bu ngeen demee ngeen jàpp ko si falaay mu ne ma nag léegi sa diggante sëñ Moustapha ma ne ko sama diggante ak Moustapha mu ne ma ne ko depuis ba daayira ba jógee ba suñu jooni tey mag sëñ Moustapha fu ne yóbbu na ma dem naa colonie mu tëjee colonie bi Tamba fu ne Mauritanie Gambie sëñ Moustapha fu mu oote dem naa jàngal na ma yar na ma li mu ma jàngal laa jàngal ma ko njaboot gërëm sant naa ko doomam mu en nag moo tax ma takku tey ñëw pour bugg a jënloo capitaine mais gende wajar bu juree gaynde wàcce na wante gaynde du jur ñu ma bugg li maa wax wax li li li ko ko mën a am ci Sénégal sëñ Moustapha rek tàcc tàcc yar gune yi fi mu ne bu doon dëkk koo ne kay béyee mu ne la xaw ma ni ñaa béyee ah, ah lii sëñ Moustapha tax ña def ko yar na gune yi raw xam naa ne ku ko déggal moom lépp tey na hmm, kanam li jëm mu fal doomam ji mu en wat sa wat sa wati ma magi si aas taxul ma doon mag ñoom ndax sëñ Babacar xaw ma juma altine ja mu ne la si la am fukki at ak juróom si la am fukki ñi ma daan àndal colonie ñëpp ndax fu mu oote ma def gune yi daaw jéeg dañu ma bàyyi daaw la ñu ma bàyyi ma ñëw daaw jéeg bu ma jëkkee wax waroon na ñëw waxaat dañu ma fa bàyyi ren ña bàyyiwaat ma fa wante terewul baax naa sama xaalis ba ñëw du ma ko rëccu ñëw naa wa salaam dama di kii. mais soo pay xale xale yi lu tax ñu bëgg la mère Binta a addina bi gisoo doon ne dama màgg wu sol si wante si woon na ma doon àndal ne dama nëbbatu wante miir bi te miir loolu ko bañ bañ bañ nangu waxal naa ko lu la yàlla gërëm ak sa ndey bañ du ko dindi te dafa bëggul lëndëm nay leer. nay leer Tapha buggul lëndëm nay leer nay leer Tapha buggul lëndëm nay leer